su ma doon su ma bëggoon su ma doon wax nii Issa limal ma quatre wala cinq mbër yoo xamante ne nii jàpp nga ni combat bu neex la yow ak ñoom ñan nga may limal. waaw dégg man la maa Garga Mbossé combat bu neex la yaa ngi neex la yaa làmb ji xaw ma si am may tonte naa la man mbëri ña may métti ay métti moom mbër man Père Gaston maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar wax dëgg yàlla sonn na sama combat mu am combat. yaa ngi dégg na mbër yu bëri ñu bañ mun ma saa yow boo koy mbëri gën a xale combat kon Issa mu bañ ndax gaa yi nekk nii rek ñi ñi wax nii ci kaw nii mais kon su fëgg nii. nga bañ maa ngi fàttaliku père kii Aziz Aziz Aziz mi fi nekkoon dëgg yi. Euh. Euh, mm-hmm. tag nag yi ak bas. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku waa waa gën a nekk boobu ñu maa ngi seen oto ñu ñu may toog combat kër gu ñu duggee ñu ne isaaf bi gars yi bañ ñu cun nawaat kon la loolu jóge làmba ji ma dugg seen oto ñoom ñu dem di wutoo combat ku ñu dem nekk isaaf man xam nga moo que làmb doo mën a bëree gars lay meetu xam nga gars yi nan xeex ñu ngi am la man mbër mbërum xeexkat moo gën a neex daan mbërum bërekat xam nga tey ji nag ndax doo ñëpp a ko man goos góos jàppante jàppante nga ñàkk mën a bëri boo gën sax nga mën a xeex mën a bëri. est-ce que gëj bëri bi tamit euh, du tax euh, nga ay repères làmb ji. non xanaa ko toog may répété man maa ngi contact daf ma war a maa ngi def ma war a def kañ. man war damaa man daa ngi maa ngi bëgg a def si éléments yi laa ko kon ñi xam ne Sénégal kon wax ka ju noppi so man maa ngi préparé loo xam ne nii dégg nga la jàmbaar dégg nga la. nee naa la fit ko am doo ko wax da ngeen jëf yi gars yi gis dinaa jëf ñu gis teg seen bët ñoom. li yi di wax Issa Pouye mënul làmb làmb mi tuul làmb ji nii. waaw. amit ñun saa ñu dañoo xeex xeex ñu ay lëbu na dañoo xeex xeex ba tas ba ñu xam dëgg loolaa ci Issa bi daan koo kooku gën a sadik si àdduna c'est que làmb nit ñi nan la ñuy wax daal li ñuy wax rek naa leen bàyyi ñuy wax loo jikkee Sénégal la yaa ngi dégg wax moom moo ay la fi jàll sant yàlla sant yàlla Sénégal doo mën a xeex ñu mën a bëri doo mën a bëri ñu mën a xeex wax na nga doon ko waxal Balla Gaye naa ko mën xeex bëri la man. Mm-hmm. kon loolu man li ciy faire quoi li ma xam noonu kontaan naa ci ndax jiguma ma ku ma daax ci làmba ji jiguma ma ne ñu arbitre la may daw làmb na fi am moom da ngay daan bàyyi daan la rek su ma doon daan da lay doon nga daanu ay eh, naka ay caasi boxeur yu mag dañuy doon ñu daanu man su ma doon daan man su ma ko defee su boobaa dama xam ne loolu lu waram la espoir ku ci nekk dara jomb la ci loolu mën na la ci def Eumeu Sène champion la. Mm-hmm. xool nga da ngaa doomu daanu te Eumeu Sène daanaan la yaa ngi dégg da nga ko doomu kon làmb moo bindoo noonu jour boo xam ne sa bis sa bis waaw man xaaral ma doon ndax Eumeu kon waaw man ñu maa daan sama. waaw kon léegi man wax ji leer la kon xam nga lu am solo mooy noonu wax ma amee combat mais ay kii la daan ak yooyu moo lamb ànd ci liggéey bi liggéey léeg nga jum ci yow léegi damaa bëgg nga xooloon ma mbër mu am fit bu mel ni Issa Pouye mu leer ni Issa Pouye bu taxawee ni kii gis naa ci moom jàmbaar gis naa ci moom fit gis naa ci moom jom te su ma sañoon jëflante ak moom ndax Issa nee na am combat moo ko te téye roi des ndax ni ñuy tëggee mbër yi bu ñu ko ko tëggee léegi mu nekk roi des arènes li man ma ñaa ñoo xamante ay ñii mu leer na la ne ñii Issa bu leen promoteur set set duñ delloo avance bi. làmb ji moom. loolu la ni ñoo gën a xam loolu Sénégal la ñoo xam li man su ñuy téye gars yi yóbbu gars yi ma fa yóbbu léegi ma téye ma ñaar waaw léegi moom xam naa ne moom du delloo sa avance moom Malick Niang ne du man sama mbokk local ne du man Malick Niang maa ngi ko nuyu bu baax ñu bokkoon saal fi ne du man yaa may dégg laamu ji li moo ko yàq mbokk mbokk mbokk mbokk mbokk lii ma dama dégg ma la yaa ngi dégg Sa Thiès ma am combat bu neex Garga ma am combat bu neex la ji ñooñu doon koy isaab bi day Gaga moo ngi fee ci États-Unis di waaj. koo xam ne Issa Pouye day bañ. Sa Thiès <laughs> bi ñuy laam-laamee naan dina taxawam du taxaw Issa Pouye nee na ñëw na tas na diggante bi ñoom ma leen chance parce que maa ngi roose lamb foofu ñooñu lu ma roose lamb dafa ñu la te boo xoolee ñaa ñooñu nga lim ñëpp ku ci nekk bëgg nga ak magam da la ku ne daanaa magam nga yaan ku ne daanaa magam waaw ba tey ku ci nekk daan na sama te waaw ba pare magam ku ci léegi Issa nee na dafa bëgg ngeen ñëw leeral ko Sa Thiès Issa Pouye nee na nga ñëw leeral sa diggante yow ak moom sa diggante moom ak Balla Gaye mboose Mbossé Issa Pouye nee na moog sama 1 la dafa war a leer ah daa war a leer nga yaa wax ñooñu duñ ma jël ñooñu ñooñu duñ ma jël wasaare ñooñu nee naa la man man man man dëgg man la man am naa mbër moo xam ne nii koo ma jox par exemple bëri moom si war a bëreel su ma d'accord vraiment bi dama man gars yi ñoom dama daw ma nag bu ràmm nga nag yee lay daw waaye doo daw nag yi. xam moo tax nga koy wax. fi mu toll nii benn Issa Pouye laay gis. la sañ-sañ doo ko amee jarul ngay wax quoi fit ko am doo ko wax da ngay noppi gerte rek nga yëngal ko affaire bi man la man a du jaru quoi nee mu réew mi dama doo ma mi mbër fekk sax ma ko bëgg dem ni ma yaa gën a xëreetul adversaire ma ko loolu moom tam xam naa loolu forsa xam nga ni daa daa mën a xeex dafa dafa garaaw. Mhm. forsa li ma daw sama moom mooy daw ma daw ma ko maa tax ne ko forsa ñëw ma daal forsa fekk naa ko fi muy liggéeyam fekk fa nekk yow doo jël sama ma daal. nga dem ba fa muy liggéeyee. pour bëgg a bëgg ak moom. yaa ngi dégg li nga xam fit nekkul ay wax fekk naa fi muy liggéey fu mu toog moom fekk fa nekk doo jël sama ma daan leew. Forza kay dinaa ko seeti léegi seeti woon naa ko waaye dinaa ko seeti. Forza ba nga seetee doo di ko wax ci man dafa daan fekk naa ko fa amul na ma wax fekk naa ko fa muy liggéey moom mu ne nekk mbër tey laa ma demee yow laay dëkk doo jël la mën fuuf. xanaa dafa foo ko dugal avant. dugal waaw yow li ma la man fa laay dugalaatee man li si ma laay génne dégg nga ma la fit nekkul loo xam ne kenn seen jotee gi ba day génn day génn man dama la man. Hmm? ma yëpp laaj respect dëgg yàlla sama mbokk mbër noonu mais dama la amul kenn comme si am na yow li may xar ñaar yow xam nga sa wax damay dënn la bu